mais jamono jële damaa teewloon ci si ay kàddu yow euh, Ahmed Suzanne kamara nga wax que ni Ousmane Sonko bés bu defee erreur dem jëli koo xam ni euh, taqiwul ci mbir bi moom du fanaan këram moom ak Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. mu mel ni wax boobu wër na Sénégal ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy partagé mu mel ni mu mel ni benn menace boo xam ne ko lancé vers kii di le président ak Ousmane Sonko ndax da nga jàpp ni dañu nekk di def erreur di taqal ay nit yoo xam ni dañu leen dañu leen a tudd ci yenn rapport yi alors que bokkuñu ci non Ousmane Sonko moom mm-hmm. ak Diomaye Ousmane Sonko moom lu lu lu Diomaye def lu lu Ousmane Sonko bëgg Diomaye dina ko def donc ñoom dafa da loolu dafa leer ñoom dañu jóg pour songu régime bi fi nekkoon fayantu mhm. lépp lu ñu leen fi def parce que li ñu leen fi def gis nañ ko mais ñoom ñoo doon résister lañu wax mhm. ils se effectivement ils se sont bien opposés oppo ni ñu opposé woo moo tax tey ñu egsi fi ñu yegsi comprendre léegi nag man li ma wax dafa leer. du ma nangu du ñu nangu fayantu parce que kii defoon na ma dama koy def. wala kii deful dara ma dama koy topp par force non loolu du fi am. moo tax nag ma ne léegi nag dañ koy teg ci yoon ñu teg ko ci yoon. suñ euh, su fekkee nag ñoom dañu nekkoon ci opposition bi ak fitna bëgg a yor gi ak fitna mais foofu fi la ñuy fekk. way mm-hmm. on face. Mm-hmm. ñun ragaluñ leen faalewuñ leen. lu leer laa la wax Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ragaluñ leen faalewuñ leen lu suñ mënee nañ ñëw jël suñu bakkan yi suñ ñu mënee nañ ñëw agressé ñu. mais yéen yéen tel comportement yi ngay wax nii wala propos yi nga yëkkati nii moom nga doon reproché Ousmane Sonko itam ba ñuy nekk ci opposition bi. nga ni maanaam nekkuñu ay nitu jàmm ay nitu fitna lañu mais maa ngi gis fitna boobu tamit ci yéen. ndax bu ma la déggee ngay wax nañ ñoo jël suñu bakkan yi ragaluñ leen faalewuñ leen tamit mu ngi bëgg a doy waar. ñun. Mm-hmm. moom on veut s'opposer de façon républicaine. ah mais ni ngeen tàmbalee nii kat c'est pas ah, mais li nga moom lañ lay fay. Mm-hmm. ah oui non ñii ku ak ñoom te comme ñoom ni ñu ko doon defee non ils resteront au pouvoir vingt vingt cinq ans au moins parce que ñoom loolu la ñu wax nee nañ bu mooy def cinq ans. Ousmane Sonko ñëw def 10 ans Diomaye dellu si waat ku opposé wul comme ñoom ni ñu ko doon defee ils resteront ici pendant. mais bu fekkee tamit liggéey na teg ko ci yoon ok mais man li ma gëm. Mhm. mooy ñoom balaa 5 ans yee jeex sénégalais yi pare ci ñoom. ñoom ñoom benn mandat la ñuy def. foo ko teg loolu. li Sarkozy defoon benn mandat euh, François Hollande benn mandat ñoom moom la ñuy def. lu tax wax loolu. ñoom ñooy inauguré l'ère deux mandats. fii ku fi ñëw def nga au moins ñaari mandat même Abdou Diouf bi mu ñëwee il a trois mandats parce que Senghor mu ko ko jox quatre-vingt mu dem élection quatre-vingt-trois dem élection quatre-vingt-huit dem élection quatre vingt ñëw def ñaari mandat bëggoon ñetteel bi sénégalais bañ Macky Sall def ñaari mandat bëggoon ñetteel bi sax sénégalais yi ne ko ñaar lañ nga waxoon ngay def mu dem ñun si boppam ñu am candidat mayuñ ñu. troisième mandat donc ça veut dire que Sénégal moom ñaari mandat moom ci ngay yem ala ku li andi ñaari mandat moom ci ngay yem man loolu laa gis waaw léegi nag ñoom ñaari sax duñ ko am benn la ñuy am. ñaari ndax dañu mënul wala sénégalais boobu dañu leen di nañ gis ci kanam tuuti leen loo xam ni xaaruñu ko woon ci ñoom. non xam nga xam nga sénégalais. aussi moom bu la falee. moom day continuer am yaakaar ci yow. Mhm. donc ñoom. li tax ñuy wax ñu ne leen may deux ans trois ans xam nañ ne sénégalais ni mu mel ñetti weer taxul mu génn ci yow six mois taxul mu génn ci yow moo tax ñu bëgg ko àpp ci ay at parce que xam nañ ne ñoom duñu wan sénégalais yi loo xam ne mooy tax sénégalais yi ne wan ah ñii de yéex na ñëw ñoom ils vont échouer et ils commencent à échouer duñu dem mm-hmm. déjà yenn sew sewaan yi ma wax wa fii léegi rek yooyu rek dina tax sénégalais yi commencé leen jëppi ba pare te tey sénégalais yi ñoom ñi ngi xaar ñoom liñ leen diggoon yow ñun ñëpp ay sénégalais lañ tey ñoom ñoo doon wax ne c'est possible que kilo kilo ceeb dootul jar 500 francs dootul jar 600 francs dañ ko war a wàññi litre diwlin dootul jar 1500 dañ ko war a wàññi mais léegi ñun wàññi boobu tamit dañu ne. ñoom ñu waar juróomi dërëm ak fukki dërëm ak cent franc déedéet loolu du wàññi baisse drastique la ñu wax consistante. yéen dafa mel ni da ngeen bëgg a imposer aussi tam parce que ku ne xam na ni euh, kilo ceeb mënoo ko wàññi tamit euh, montant bi nga bëgg noonu euh, Ameth nañu waxante. kilo ceeb kay ñoom dañ ko war a indi deux cent cinquante wala trois cent. alors <laughs> ah, kay mooy waaye mais xam que tey bu ñu sukkandikoo ah, ci dañ ko war a indi kay à 1000 francs wala moins de 1000 francs litre essence 1000 francs dañ ko war a indi kay ay 600 cent loolu la ñuy xaar léegi nag ñoom 2 ans 3 ans yi tamit ñu ngi koj pétrole beeg gaz bi parce que xam nañ ne xaalisu pétrole beeg gaz bi dina egg si boobu bu ko defee ñu mën a subventionner les prix ba pare euh, jàppale secteur privé bi pour emploi bi ñu yokk emploi parce que xam nañ ne xale yi ñii ñëpp mënuñ leen wutal liggéey ñoom déjà buñ leen seetaan ak booy rek. booy régler seen problème xam nga ñoom ay booy leen bu ñu leen seetaanee booy seen morom yi rek booy yi régler seen problème. mais mais mais man. jàpp le marché de l' emploi duñ ko régler. ils créeront pas des emplois pour la jeunesse booy ñu ngi dinañ continuer di jël euh, gaal gi te ñoom ñoo doon wax ñi nekk diaspora bi aussi nañ ñibbisi parce que liggéey dina am Sénégal dina neex loolu lañ dig diaspora bi diaspora bi daf leen voté gis nga leen ni leen voté ñoom ñoo gagné diaspora bi ça on le reconnaît donc ñoom li ñu promettre mooy diaspora bi dellu si mais kenn du dellu si kenn du dellu ku fi dellu si fan fande waaw. mais ci réew bi euh, suñu Sénégal ku ne xam na ni am nañu gaz am nañu pétrole loolu bu ñu ko exploité euh, euh, maanaam Sénégal ak ñeneen partenaires yi xamante ni sekk na ko gis ci boppam dëgg. Mm-hmm. gëm nga ni Sénégal dina neex quand même nag waaw mais. loolu yàlla moo ñu ko jagleel naturellement. Mhm. d' accord loolu ñun ñëpp ko soxla dañu bëgg sax gaz bi bari na mais dañ suñu gën a yokk pétrole bi tamit bari na mais loolu rek mënul régler suñu problème.